fàtte. Ah, sëñ Xaadim yëpp. ànd naa koog dañoo ñëwoon rek waaw waaw indi indi indi seen ndigal loo jëfe loo joxe kenn waruñu cee ëpp kenn waruñu cee man ndax li nu doon yéen a bu dul woon Mbàkke sunu sunu ndong taq suuf lépp yéen ndigal li ngeen joxe. moom la ñu woon nañu ñëw indi sunu barkeelu ñu dem ñëwaat na te nu weesu ko lii nu fi indi xeeb nañu ko bu nu sañoon. ci alhamdulilah alhamdulilah jërëjëf jërëjëf Mbacke waaw moom de ani ani. sëñ bi dina sant bu baax juróom fukki million mbooloo mi nag ba nga joxe ndigal la ñëpp ñëw baatin nag ci tege nag xam naa ne ndax lu bari ñëwaat waaw xam naa ne kenn du des fenn ñëppay ñëw ah waaw ñëppay ñëw maa ngi leen maa ngi leen maa ngi maa ngi ubbi sama dënn rek. am tawfeex da nga ñëw de. ah am tawféex ku am tawféex di nga ñëw jërëjëf Cheikh nag bi may ñëwee daf ma ni boo demee nanga ma yóbbul sama siyaar wax na ma ko ba waaw waaye nee na bi ma ko dee damay yóbbu damay yóbbu addiyo ji daf ma ni boo yegee ah. na ma ko joxal sama siyaar ah, ma joxel ma joxel ko ko <laughs> la nga ma waxoon rek woon la nga ma waxoon ah. ca ah, ni ma da nga ne woon jeexalal sa doole takk fa sëriñ Cheikh Mbacke loola laay def ndigal la ma joxoon ca laa ne ah waaw jërëjëf sama jotaay bi ah. lay wax nga dëgg ñaan ñu ngi ñaan mu yàgg fi tëwër ñaanalal Serigne Cheikh mu yàgg fi tëwër. rek moom kay fayal ngeen ma ne sëñ Béthio nag bisam ba da day bésub démb la woon bésub suba. te cantam googu ñuy wax 17 avril daa dellu si. mooy bis ba mu dajeeg Serigne Saliou. mooy bis ba mu dajeeg Serigne ko màggal. danaa ko màggal Madinatu Salaam. jënd naa samay nag ak samay gëlëm. Eh, danaa danaa danaa danaa fa jàng alxuraan. danaa fa jàng xasida. Ah, waaw wax naa ko sëñ Cheikh ba mu jox ma ci ndigal. Ah, ah, waaw di taalibe rek. rek. taalibe Sëriñ Tuubaa bi cap nan doon jullit loolu rek lañ ñu digal rek nan yor it jikkoy taalibe jërëjëf nan yi jikko yi am ñun ñëpp kenn kenn bëgg jërëjëf nag bàyyi jikko yëpp te yor jikkoy taalibe jërëjëf